ak xam-xam bi nga fi am yëpp ak fi nga teg sa bopp ci xam-xam mhm. ñi ngay tëkkaleel sa bopp ci xam-xam amul Sénégal mhm. la moo tax nga bàyyi fii ñaanal nit mu am lu mu soxla lan moo tax nga bàyyi fii am sa tarixa ñun ñi di ñëw jébbalu ci yow nga leen di yóbbu ci siraatal mustaqim wala nga ibbi ay daara di jàngale nga bàyyi fi loolu yëpp nga jël lii nga xam ne jëmul lu dul ci sex diggante góor ak jigéen kese foowaat lan moo tax yow nga ne loolu ngay spécialisé wu bàyyi yeneen yëpp parce que mës nga ma ne ma su ma neexoon ma muuru woote. Mhm. waaye defuloo ko lii nga utiliser lu tax. su ma woote woon sa jinne wuyu si. waaw léegi lu la uh, uh, uh, loolu dinañ ci waxtaan ma ak yow loolu loolu ca ngonal la la léegi lii. li tax mooy ci niñ ma yaree te jàngal ma dama jàpp diina lislaam ngir dara lu mooy mu doon jumtuwaay ngir ma jege suma borom. Mhm. amul daray commerce. Mhm. moo tax ma seexloo jël tiituru ustaas. Mhm. ba pare aw ma daara. moo tax ma seexloo jël tiituru sëriñ. di xaar taalibe bu joxe addiya waxuma dafa bonde man maa ko seexlu ci niñ ma yaree. li ma xam ci xam-xam mooy jaamu ci yàlla jéggalu ci yàlla sant ci yàlla dimbalante ceeg nit ñi. mais lii suma commercial la ngir ma mën a dund mën a sant yàlla ngir ma mën a am mën a gore hmm. nit da ngay am mécc leer na yonentu bi yàlla yónni diine ji commerçant la woon mais ci ndaw sàmmkat la woon hmm. mais yow commerçant sàmm émission bu jot nga bëgg a sanc te ne ustaas nga war a sëriñ nga kenn xamalu la bitik gërëm giir ñu baax ñi rek su yàggee dëgg daf lay réer ndax yaa ngi sàqar mi alali koo xam ne jikkoom soof na la daa mel na am na koy gaarawaale xaw ma nag li may pas gaar wala damay tudd fee bu nekk ci société bi te nga xam ko ma xam ko ma sàmba xam ma demba xam mhm. fii kuñ fi ne ustaas nga mhm. danga war a am daara di xëy ci daara ji di jàngale soo ko doonut mën nga doon professeur mais doo ustaas ustaas titre la titre bi dafay am act bu koy wane ustaas arabe la waaw mooy jàngalekat ah, mooy professeur jàngalekat ci daara ji mooy professeur waaw mhm. mais yow mais mais mën ngaa jàngale ci télé bi tamit. su boobaa am na tur. mais du ustaas. Mm-hmm. xam nga tey am na lu ñuy wax social commentator kuy waxtaanal nit ñi mais doo tudd ustaas. Mm-hmm. mais tey da gis imaam yu bari amuñ jàkka wala jumaa wala dañu dem si jumaa jël titre imaam mi ngir mën cee dóor dóor boobu moo tax nga dégg soit disant ñun doomi daara mais kenn moo dul doomi daara ku jàngul baasin mimara parce que amuñ diplôme ci professeur yu mag yeeg ay ingénieur ak nangam ñu jël benn tournée doomu daara. mais jullit bu ne doomu daara la. ci yooyu laa nekkul man. li ma jàng. pour jëfee la maag suma borom su ma defee bàkkaar jéggalu ko. su ma nattoo ma sant ko. soo ma jegee ma wax la li yàlla wax yem ci. mais en dehors de suma gëm-gëm nag commerçant la lii lay commercialiser ngir ñetti mbir bi ci njëkk mooy xaalis. ñaareel ba xaalis ñetteel ba dimbale nit ñi. premier xaalis ñaareel ba xaalis. waaw ñetteel ba dimbale nit ñi. dimbale nit ñi. waaw ndax suma bopp moo ma gënal nit ñi. d'accord waaw ndax bi bu ma dee rek mënatumaa defal nit ñi dara. d'accord amul niw boo am njëriñ. d'accord am na loo xam ne damay bàyyi non xam nga loola yàqal tey. mooy du ma wax lépp parce que dama am émission ak yow ngonal. Mhm. moo tax damay ragal dugg ci yeneen thèmes yi. Mhm. waaye Baali yeeg Pape Diouf yeeg Waale Seck yeeg. Euh, euh, Kéba Seck yeeg lépp kon dinañ ci waxtaan après incha allah mais